أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu yusuf tey ñuy jël ñeenti aaya aaya 7 aaya 8 aaya 9 aaya 10 ñeenti aaya yu ñu sunu borom di jàngal ñeenti mbir ba ca jiitu mooy almaylu ila ahadil abnaa'i bil xubbi yurisul adawa bayna al ixwa danañ jàng tey benn règle ci règle yar borom kër gu am njaboot moo xam ñoo bokk ndey moo xam ñoo bokk ndey ak baay moo xam ñoo bokk baay borom kër googu lan la war a jàng ci qissatu Yuusuf mooy dañ lay tere almaylu ila ahadil abna yi dañ lay tere nga am doom yu bari nga jeng nga am foo far ci doom yi wala nga am koo faral ci biir doom yi loolu sharia daf koy tere ndax loolu lu muy jur yurisul adawa baynal ixwa day jur noonoo diggante njaboot gi ñi nga bañ dañuy révolté ci kaw ñeneen ñi wala ci kaw keneen ki te lu nekk mën na cee juddu te loolu ba ko alquran jàngalee yàgg na trop mais danañ ko gis ba tey nit ñaa ngi koy def nit ñaa ngi koy dund. jur ay doom gënalante waaye fii ci saar bii di suratu yusuf fii mbokki yusuf yi doomu yaqub yi dañoo juum. dañoo jàpp ne seen papa daf leen gënale ak seen frère yi fekk du loolu joxe woon naa misaal semaine bi passé bi ñuy def muqaddima ci suuratu Yusuf ma wax ne léeg-léeg nga am doom wala nga am ay doom même sax bu ñu bokkee ndey ak baay ki ci mag am 30 ans ka ca tegu am 25 ans ilaa axir ñu jëm suuf. ba am ku ci nekk caat wala ku ci gën a ndaw am sept ans wala am ay quatre ans wala am ay cinq ans ma ne est-ce que ki am trois ans ki am quatre ans ki am cinq ans ni muy amee ci yow accès noonu la ki am trente ans di amee ci yow accès tontu bi mooy déedéet ki am ci yow trente ans buy ñëw sa néeg day fëgg voilà su la soxlaa day ñëw ba ci yow ne la papa dafa laa soxla amaa ku ndaw ki moom moom du ñaan audience moom vif yoonam nekku ci soo xefee sax mën na laa fekk ci douche bi soo ko ubut wala lu mel noonu nag bu fekkee kooku ndaw la day jege papa ji day jege yaay ji su mag yi amul xel dafa ne seen papa daf leen a gënale ak kii suñ dem yóbbaale ko toogee uuf ko bu ñuy lekk mu koy lekkal yenn saa yi sax mën na ko sang yenn saa yi sax mën na ko fekk ci pot bi mu toog dem àll ba ba pare mu laab ko ñee mag ñi jàpp ne suñu papa daf ñoo bañ ko ñuy def nañu erreur dañoo war a fàttaliku ne ñoom noonu lañ meloon démb balaa ñuy am fanweeri at noonu lañ meloon seen papa noonu la meloon ci ñoom lii nag moo am diggante doomi Yaaquba yi ñoom ñu jàpp ne seen papa daf leen a minimiser Yuusuf la gën a bëgg Benyamin la gën a bëgg waa kër Rahil la gën a bëgg ak seen ñu ne ñu révolté ci kaw Yuusuf loolu nag mu nekk xaayida boo xam ne képp kuy borom kër képp ku am njaboot war ngaa def attention ci say doom kenn ci ñoom war lañu sentir ne yow da ngaa gënale doom yi sallallahu alayhi wa sallam nee na sawwu awlaadakum na ngeen yemale doom yi mu ne xatta fil atiya même bu ngeen leen di jox na ngeen yemale kenn amul droit am ay doom jox kii téeméer jox kii ñaar fukk te pourtant ñun Sénégal dañ koy def ci lañ dëkk guddeeg bëccëg da ngay am ñaari doom ñaari doom nga am yàlla xam na ñoo bokk ndey ak baay wala bokk ñu ndey ak baay waaye ñaari doom yaa leen jur yenn saa yi sax ñu bokk ndey ak baay ah kenn ki di dem école kenn ki di dem daara jàngi alquran kii dem école bu xëyee suba danañ ko sang ba mu set dañ ko solal yére yi set danañ ko jox argent de poche jox ko paas kii jàngi alxuraan bu yow kenn du ko sang kenn du ko solal yére yi set cere lañ koy jàngale defal leen ko cere ji mu mu ndekki dem kële lu tax ndekkiwul ci cere ji noonu lañ leen di diviser kii jàngi alxuraan moom kenn du ko toppatoo kenn du ko faale kële nag ci école yu cher yi lañ koy yóbbu yenn saa yi sax ñu doon aboneel ko oto mu koy yóbbu di ko indiwaat wala wala parce que dañoo yaakaar ci moom dara ne moom dañ koy defar pour ëllëg pour ëllëg pour nangam pour nangam pour nangam léegi nag yàlla dafa këpp cere ji cere ji la yàlla dank suuf ne ko ci kapak ñooñu yaakaaroon léegi ñoom ñooy toj kaar yi ñooy taal dëkk bi ñooñu ñu doon xeeb ñooñu tey la mbir mi këppwaat ñëw ñoom ñoo ñoom ñoo yor lépp booy xool tey Sénégal ndeysaan ñi fi ëpp alal kenn mënu cee signé ci ñi ci ëpp ay xaafis quran lañ daara lañ génnee booy xool kooku ñu doon jox paas ak di ko yóbbu di ko kii di ko lii mu jàngee ba pare nelaw dong yow doo wuti liggéey waaye xaar paa ba gaa yi gi bañ gaa yi jël ma def naa ay demande kële nag moom ba mu génnee xaarul lool de dafa ñëw rek commencé yoonu ay saak di jaay ay butéel di jaay beñe di jaay caaf di jaay café ba yàlla wuy si ko moo tax ku iñaane yàlla sa doom li gaa yi di wax rek ku iñaane sa ndono sa deewin ñaaw ba ñu iñaanee sunu doom yi yàlla moo tax it jëriñoo wuñ leen nit dañ koy xamal yàlla waaw nit ki suñ ko xamalee yàlla rek mu mu baax képp koo gis éducation baaxul dañ ko xamalul yàlla suñ la xamalee yàlla rek nga jëriñoo sa bopp jëriñ say waajur waaye daal di jëriñ sa bopp mbokk yi danañ jàng tey ne ku am ay doom da nga leen war a yemale ci lépp ci lépp ci lépp da nga leen war a yemale ci dëkkaay ci code ci lekk ci naan ci faj ci toppatoo ci jàng ci formation ci yar képp ko am doom da nga war a yemale doom yi góor ak jigéen ñëpp nga war a tollale waroo def ñee waa aljanna kër waa kër gee nga def leen waa aljanna ñii nga def leen waa safara sooy ayee ji fee daan ne maa ngi dem aljanna booy dem beneen kër gi daan ne maa ngi dem safara loolu musiba la képp koo xam ne tolloowuloo say doom wala da ngaa gënale xale yi dinañ xeex ak yow day gaaw wala day yee xale yi soo te soo moytuwul soo rëccee dëgg dëgg dëgg mooy ci ay dóor nga yem kenn dana ñëw yëkkati la ba ci kaw ne la gis nga yow paa bu nangam nga waaw te kooku mooy ko gën a ndaw loolu tax nit mu amee ay doom na leen yemale bul gën a la kenn kenn warul xam sax ci doom yi koo gën a bëgg ak wala dafa am koo fi bañ yaa leen jur ñëpp mu des nag léeg-léeg ci wàllu éducation léeg-léeg nga am doom wax dëgg yàlla nga mere ko soo ko yee fajar du jóg soo ko loo ko wax day bañ mais loolu yëpp rea na mooy ne doom la donte na yenn saa yi mu mu jàdd loolu yëpp nag islaam daf ñu koy wax pour ñu bàyyi xel ñu xam ne dañoo war a maandu ci diggante doom yi beneen bu ñuy jàng mooy alxasad sabab li kasir min al kawaris al bashariya iñaan iñaan benn phénomène la boo xam ne li mu jur ci àdduna bi ci ay catastrophe kenn xamul nu mu toll iñaan soxor mbokk mbokki yusuf yi lan moo leen indil gàcce gi leen dal iñaan soxor loolu moo leen dal ba ñu jóg di fele fexeel xale bu ndaw bi jàpp ko sànni ko ci teen jële ko ci teen jaay ko dóor ko toroxal ko def ko lu kenn xamut iñaan dong waaye mbokk yi iñaan moo tax yàlla daal di génne iblis ci biir aljanna wala du iñaan loolu tax yonent yàlla nuux alayhi salaam bi ko sunu borom subhaanahu wa taala waxee nuux yettal gaal nuux yett gaal gi ba gaal gi pare yàlla mu ne ko jë jëlal xeet wu nekk ñaar nga dugal ci biir gaal gi nuux jël rabu àll yëpp gaal gi daf ko def ñaari étage ak benn ci kaw boo xam ne comme mbaar ni nit ñi di defee picc yi tag ci kaw rabu àll yi nekk ci digg bi nit ñi nekk ci suuf waaye nuux bi muy ranger nit ñi ñuy dugg gaal gaa ngi taxaw asamaan a ngi taw suuf saa ngi commencé génne ndox nit ñaa ngi dugg nuux dafa dugg ba gaal gi di waaj a départ rek mu tourné rek gis benn paa bu màgget bu toog mu ne ko yow mu ne ko yow noonu yàlla bi lan moo la fi dugal yow noonu yàlla bi lan moo la dugal ci sama sunu gaal gi mu ne ko bàyyi ma ma dugg ma paas bàyyi ma ma paas ma dugg mu ne ko lan moo war a nekk sa paas mu ne ko dinaa la wax juróom-ñaari mbir yoo xam ne di nga ko jëriñoo yàlla daal di wax yu nuux ne ko déedéet na la wax ñaar kese bul jël juróom-ñaar na la wax ñaar kese mu ne ko waaw wax ma ñaar bëgguma juróom-ñaar yi wax ma ñaar mu ne ko mooy tëndikul iñaan ndax man iñaan lañ ma toroxalee waaw dafa iñaane aadama biir aljanna yàlla sàkk aadama lan la ko aadama di déranger waaye yàlla mu ne nañ sujootal malaaka yi yéen ñëpp ànd leen ngeen sujootal aadama iblis daa di lànk iblis boroom xam-xam yi wax nañ ci ay mbiram lu bari ñene malaaka la woon am na ñu ne du malaaka alquran ne kaana minal fa fasaqa an amri rabbi kaana minal jinni mais tegaw terewul kaana googu encore ñenn ñi wax ne iblis jinne la woon donte ne yàlla nee na kaana minal jinni parce que kaana boo ci duggee di nga fekk tafsiram mën naa bañ a nekk jinne almuhim ijmaa moom dañu ne jinne la xasanul basri mu ne lam yakun qat minal malaayika bokkul ci malaaka yi waaye am na ci boroom xam-xam yi ñu ne iblis malaaka la woon te ñooñu ñu bari lañ almuhim di xëccoo bu yàgg la waaye ijmaa moom lu ñu gëm mooy iblis du jinne du du malaayika moom noon iñaan googu mu soxoree bi yàlla ne yéen ñëpp sujjootal leen aadama yàlla ne fa sajadal malaayika kulluhum ajmain illa iblis malaaka yëpp dañoo sujjoot ci kanamu aadama ba mu iblis dong dong kott moom kenn moo lànk ba ñu sujjoot lu tax malaaka yi sujjootee yàlla gis iblis sujjootul mu ne ko yow maa manaaka an la tasjuda is amartuk lu tax ma jox la ndigal yow iblis nga lànk ba ñu sujjoot qaala ana xayrun minhu mu ne maa ko gën kii nga xam ne ci ban bu nëpp fi xamain masnuun fi salsaalin kalfaxaar yooyu nga ko bindee ban yu nëpp yi ki xasaw yi man di nga ko bindee ci loolu ma nekk fi di ko sujootal du ma ko sujootal dara yàlla mu ne ko mais man maa la sant is amartuka man maa la wax nga sujootal ko yow iblis man maa lay jox ndigal man yàlla ngay lànk dinaa la dàq ci sama yërmande sama alkane dina tegu sa kaw ba yawmal qiyaamati génnal dégage génnal ale faxruj minha mad madmuman madxuura génnal ngay ku ñu toroxal ku ñu dàq ci yërmande yàlla rek mu ne yàlla yow yaa waxoon ku liggéey di nga ko fay man damaa liggéey di nga may fay yaay ma ko loo bëgg mu ne ma bañ a dee ba yow man xiyaam yàlla mu ne may naa la ko rek iblis tëb daan ne ko fa bi izzatika giñ naa ci sa màggaay yow yàlla la ughwiyannahum ajmain ñii ñëpp dinaa leen réeral gis nga fii ak njabootam dinaa leen réeral la aatiyannahum min bayni aydihim danaa ñëw seen kanam danaa ñëw ndeyjoor danaa ñëw càmmoñ danaa ñëw côté yëpp ñu ëpp ci ñoom ci ak doomam yi doo fekk ñuy nekk ci yoon bi nga leen sant yàlla mu ne ko ba mu des sama jaam yu sell yi mënuloo leen dara yow iblis almuhim xissa bi gudd la waaye benn buntu dong laa soxla mooy iñaan moo tax iblis yàqule kon nit na mooy iñaan ñaareel lan moo tax qaabil rey haabil iñaan lu tax qaabil rey haabil iñaan xam ngeen qaabil xam ngeen haabil qaabil mooy kan mooy ñaari doomu aadama yi xam ngeen aadama alayhi salaam li ko yàlla tabaraka wa taala defaloon ci xéewal mooy day am ñaari doom day am ñaari doom góor ak jigéen su ëmbaatee mu am ñaari doom góor ak jigéen suñu màggee ñu inversé leen ñu jël ku góor ku jigéen kii may ko ku góor kii ñu jël ku jigéen kii may ko loolu moo doon sunna bàyyi aadama ci kaw suuf loolu daganoon na ci ñoom ndax loolu moom moo doon seen diine ñoom daganoon na ñu koy def di ko def di ko def ba ñaari peer ñëw ku tudd qaabil ak haabil xanaa qaabil ak haabil ñaari góor lañ waaye ku nekk da nga am sa seexu bopp mariage bi jot ñu war leen inversé ñu jël sëru haabil may ko qaabil qaabil lànk mu ne du ma jël kii ku ñaaw kii du ma ko jël kii sama man sama sër moo gën a rafet kii laay jël ñu ne ko non loolu loolu du sariya bi seet loolu dafa xaraam mu ne en tout cas kii du ma ko jël bàyyi aadama ne ko loolu mooy du am parce que kii loolu la yàlla wax nii lañ koy def mu ne loolu man du ma ko nangu bis boo ko defee kii dinaa ko rey la aqtulannaka dinaa la rey yow ndeysaan aadama daal di def loolu jël kii may kii jël kii may ko moom mu lànk kee gedd ko ba pare mu jël ay bagage am génn yemu ci mu jël sërëm bi daw ak moom yóbbu ko noonu la def yemu ci loolu mu wër haabil ba mu fekk ko ndeysaan dafa dafa amoon tool mu liggéey ba sonn mu njaganaayoo benn xeer tëdd di nelaw di noppalu xelam iblis ñëw ne ko rey ko xam ngeen iblis waxoon na yàlla waxoon na aadama ci biir aljanna yow yaa ak sa njaboot di nga am problème du ma leen bàyyi ngeen noppalu ah ndeysaan aadama la njëkk a sóoru biir aljanna génne ko parce que yàlla tere woon na aadama lekk garab ga mu lekk ba mooy ñaareelu paas bu iblis paas ci gaalu nuux wax na ko moytandikul lan iñaan ñaareel bi mu ne ko moytandikul rëy ndax man ñaari yi ñoo ma yàqal yàlla digal na ma ma bañ aba wastakbara wa kaana min alkaafiriin mu bàyyi ba qaabil di nelaw njeganaayoo benn doj mu bugg ko rey xamul nu mu koy reyee iblis na ko da ngay jël xeer bële nga yenu ko soo ñëwee ba tiim ko fi mu tëdd nga yëkkati ko ba ci kaw nga dóor ko ci bopp bi dana dee mu dem def loolu kon iñaan moom tamit moo tax mu am problème iñaan baaxul beneen ba ca tegu yahuud yi lan la ñu bañee lislaam mooy iñaan yàlla yéewa yéewal na na jullit yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud yi lànk c'est parce que diggante yahud ak islam xam ngeen ne yahud yi ak l'islam lan moo leen boole xam ngeen ko ah ñoo bokk maam kan mooy seen maam Ibrahima ibrahima alayhi salaam ibrahima moo jur ismail moo jur ishaq ismail moo jur sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishaq moo jur yaqub yaqub moo jur yahudi doomu baay googu iñaan googu soxor googu la ñu bañe lislaam bañ jullit yi kon ñaari bàkkaar a ngi nii yu jara moytu ñaari bàkkaar yu jara moytu ñaari bàkkaar yi mooy ban ak ban mooy iñaan ak rëy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam nee na iyaakum wal xasad fa inna al xasada yaakulu al xasanaat kama taakulu naar al xataba mooy tandiku leen iñaan ndax iñaan day lekk jëf ju baax comme safara ni muy lekkee mat mbokk yi ci yàlla lan mooy iñaan lan mooy iñaan iñaan mooy am ko am dara nga yéene ko loolu yàlla na yàqu wala yàlla na wala wala wala wala wala loolu mooy iñaan nga mënoo ko mu nangu ci soxol soxol bi day tàkk dafa am ñaar yu yu am ñu nuróote bokkuñu iñaan ak ñee iñaan ak ñee nit mën ngay ñeemee doo iñaan iñaan mooy na yàqu ñee nag mooy yal na ma yàlla may lu mel nii ah yow yëng nga sa waay am na oto yal na yàqu yal na accidenté yal na dee loolu lan la iñaan oh alhamdulillah waay waay waay waaye man tamit ñaanaloo ma am bu mel nii waay waaw loolu mooy ñee waaw loolu mooy ñee loolu dagan na ci lislaam mais ama ñi iñaan kooku dafa xaraam yàlla nee na wa min charri xaasidin isa xasada gis nga dañ ñu jox sax saar nañu muslu ci iñaan ndax baaxul wa min charri xaasidin isa xasada ñaata yoon la nit di jàng xulaam benn wil falaq pour yàlla musal ko ci iñaan mu nekk feebar boo xam ne ci xol lay nekk te nit ku nekk da ngaa war a fexe nga xeex ak sa xol ba loolu du ci nekk iñaan nga dind ko ci sa xol yàlla nee na ndax da ngeen di iñaane nit ñi xéewal yi mu leen defal am tahsaduna naas ala ma ataahumullah ndax da ngeen di iñaane nit ñi xéewal yi nga xam ne yàlla moo leen ko jox kii dafa am yàllaa ko jox kii dafa feebar dafa am benn waaye bu feebar mënatul dox ñu tegal ko puus puus indi ko puus ko nii ba ci fenêtre ci hôpital bi mu ngi ci kaw immeuble bi mu gis nit ñi di dox mu ne nii di xool nit ñi ndeysaan moom mënatul dox tànk yi ñoo yàqu mu ngi toog ci puus puus bi indi nañ ko ba ci fenêtre bi mu ne nii mu gis nit ñi di dox muy xool docteur bi ne ko ah lan la mu ne ñii ñëpp damaa bëgg ñu dee ñu mel ne man dootuñu doxati kooku lan moo ko dal dafa soxor parce que gis na ne mënatul dox mu ne na ñëpp dee na ñëpp lafañ comme moom bu ñu kenn doxati loolu du diine su ko defee doomu ndeyi mbokki jullit yi ñaareel boobu dañ koy jàng alxasad sabab li kasir min al kawaaris al bashariya gis nga kër ñaar ñu fay sëy di fa wujjee suñu iñaanantee rek sëy ba yàqu kër gi tas jëkkër ak jabar bu jëkkër iñaanee jabaram kër gi yàqu su jabar ji iñaanee jëkkër ji kër gi yàqu su papa ji iñaanee doom yi kër gi yàqu su doom yi iñaanee paa bi kër gi yàqu iñaan baaxul parce que ku la iñaanee rek jóg ci yow yenn saa nga gis ku ñu liggéey mu def yaramu neen da doon liggéey rek xëy rek dootul liggéey daal di tàqalikoo ak sa goom ki ko liggéey da koy iñaanee du dara lu dul iñaanee ko li mu am rek teraanga yàlla moo koy defal zalika fadlun min allah xéewal la goo xam ne yàlla moo koy defal ku ko neex yahdi bi man yasha ku ko neex yàlla tabaraka wa taala may la wala wéral la wala may la kattan may la doole may la daraja may la ndomba tànk li ci jaadu mooy nga bañ koo soxore te ngay gis ñaari doom baay ñoo bokk kër ñaari nit ñoo bokk ndey ak baay ñu soxorante di liggéeyante di xërëmante kenn ci ñoom bëggul avancé wallahi allazi la ilaha illa huwa barkaati démb téye naa nit ci téléphone lu tolloog une heure wala lu ko jege loolu dong lay wax li ko li ko fameem def ci ay xërëm ak liggéey ba mu mi ngi liggéey mais dafa feebar te xam na ne lii njabar la guñ ko def parce que dañ ko ko envoyé boobu xamagul sunna ñu envoyé ko njabar yi ne ko def ko ci sa yaram nangam ak nangam nangam nangam mu dem def ko ndeke dañ koo xërëm bi ko affaire yi sonalee la jël paaka xotti téere yi mu gis xaatim yiñ ci def ak turam biñ ci bind loolu lan moo ko waral iñaan mbokk jullit yi bàkkaar yi gën a rëy ci kaw suuf iñaan ci la bokk mbon gi gën a rëy ci kaw suuf iñaan ci la bokk te nag nit bu ci xeexul ak xolam kii ñaan chaque jour xolam day bitaa gaz xolam day tàng su gisee ki mu iñaanee surtout nag mu lay gis yaa ngi gën a avancé yaa ngi gën a rafet yaa ngi gën a yaa ngi gën a yaa ngi gën a xolam day tàng jër moo tax du ko mën a muñ su jógee foog mu dem seet nu mu la éliminé danañ jàng irtikaab axafu dararayni qaida shar'iyya amila biha al awwalun irtikaab ak xafu dararayni chaque jour ci lislaam dañuy wax ne su yu bon dajee yu bon dafa am yu bon yu daje yu mat fukki mbir wala juróomi mbir dañoo indi cigarette indi yamba indi gaz diluant indi dorog indi sàngara indi héroïne indi katijantal indi marijuana indi waa kay kon xam ngeen affaire yi bi ñu ndee yi yëpp ñu ne la yow foog nga def benn sinon day du baax jaas yi tiim la di xaar te soo bañee dañuy dagg sa bopp charia lan la la sant nga jël ci yi gii yii ban moo ci gën a garaaw yéen ñoo ngeen doon lim nii ah cocaïne moo ci gën a garaaw cocaïne moo gën a garaaw katijantal ah mais am na bu gën a garaaw.
cocaïne moo gën a garaaw.
cocaïne moo gën a garaaw ok léegi kon bal ngay jël. cigarette moo gën a ndaw moom lañ la wax nga jël waaw ok affaire yi daal di jeex loolu charia daf koo maye. jàng ngeen sax ci fiq ñu ne boo nekkee ci àll amoo loo lekk nga fekk fa mbaam mu dee mbaam la woon de daa araamoon kon bu dee. gën naa araam ñu ne la mën ngaa dagg ci pooj bi taal say mat lakk lekk ba suur nga dagg beneen pooj bi teg sa mbagg yóbbu ut yóbbal di dem saa yoo dajeeg lu dagan nga sànni yàpp bi daal di jël lu dagan li bàyyi lu araam li gis ngeen solution islam waaye lii yëpp kañ lañ la koy sant mooy boo nekkee ci xat-xat boo nekkee ci jafe-jafe boo nekkee ci metit boo nekkee ci coono lañ lay sant nga utiliser lu ndaw lu araam pour nga mën cee génn amma bu dee yu baax ñoo daje yu baax yëpp yu baax la comme ah comme julli woor joxe azaka aji màkk yi ñoo daje ci benn waxtu ban ngay def julli moo gën a foor ngay def moom ngay def kon chaque jour nit suñ la dajale yu baax bi gën a foor ngay def bi gën a baax dafa am baax gën a baax gën a gën a baax gën a gën a baax nag bu dajee ci yow lan ngay def gën a baax ñaari sarax dafa daje ci yow ñaari nit ku nekk ne la fi sabilillah munoo sarax ñaar yëpp ñoom ñaar ñu ne la seetal ñoom ñaar seetal déedéet koo ci bokkal yow kooku ngay jox al aqrabu awla jeex na mu ngoog parce que kii nga jox ko ñaar ngay am da ngay am yàlla am jokk mbokk kee soo ko joxee benn dem ngay am jox nga ko am nga yàlla mais mbokk gi mais kii nga xam ne sa mbokk la encore da ngay mbokk gi ay allahu akbar kii gis nga am nga mbokk gi am nga yàlla muy ñaar moo tax chaque jour lu baax suñ la ko santee foofu boroom xam-xam yi sax dañ faa rawante da ngay gis ñu ne la al awlawiyaat al awlawiyaat dafa dañuy dañoo am benn thème de formation ñu dem jàngi am benn mbir bu ñu bëggoon def mbir mi lu baax la jaamu yàlla la biñ demee ñuy diisoo ki ñu doon defal formation yi ñu ne ko ñun de dañuy bëgg def nangam mu ne loolu de jamono bi du awlawiyaat maanaam nekkul nécessaire loo xam ne war ngeen ko def ñu ne lu tax mu ne bu ngeen gisee xaalis bi ngeen di jël def ko ci loolu am na fu mu gën a yey ñu xam ne wax na dëgg chaque jour nit dafay xool li li mu li mu war a gën a def mu def ko li nga xam ne mën naa mujje mu mujje mais ñun suñu problème mooy dañuy bàyyi lu ñu war a def di def lu ñu war ta def te misaal yi bëri na waa ji lii la war a def mu teg ko fee def loo xam ne moom sawaay waru ko def moo tax chaque jour luy xew da ngay gis waa ji di luwe jënd oto di tiitaru bis ñëw ñu ne wee yor nga fi 3 mois de kooku lu mu waroon de fexe ba dajale noonu mu yoxos joxosoo ba koroj koroj am as oto ah wala xanaa lenn mu xam ne oto bi mën na ko indil lee parce que yenn saa yi tamit day laaj moyen bi nga xam ne dina la indil lu gën a rëy xanaa loolu mais bu fekkee ne du loolu chaque jour nañuy def a- awlawiyaat wax bi dafa ah lan la ñuy wax dañuy jàng alxuraan wala dañoo war a julli ah nga ne noonu nañ naxaar ma jàng sama alxuraan bi ba pare doog a julli non non non non tegal téere bi jógal julli julli moo gën a yay dañuy def conférence nga gis ñu ne nañ bàyyi ba conférence bi rek ci jóg a julli déedéet dañuy teg conférence bi arrêté ko àndal bagage yi julli continuer parce que loolu moo gën a yay en tout cas li ñu bëgg a jàng tey mooy irtikaab axafu dararayni qaida benn qaida la benn règle la boo xam ne shar'i dañu la wax iza tazahama adadul mafasid nartakibu adna minha su fekkee yu yàqu ñoom ñoo am qaida bi loolu la ñun ñëpp ñu daal di koy jël nee na amila biha al awaluun ñu njëkk ñi def nañ ko al imam hasanul banna ashahid fekke na benn jàkk boo xam ne li leen boole mooy qad qaamati salaa ñaari yoon ak qad qaamati salaa benn yoon waa jàkk ji di xëccoo ñii ne dañuy waxat xaamadi sala ñaari yoon ñii ne dañuy waxat xaamadi sala benn yoon ba dënn yu tàng ñu nar a tëj jàkk ji kenn narul julli ndax dañ ne ku fi liqaam dee ñee taxaw yor seen i yat ñii taxaw yor seen i gourdin mu daal di dugg si jàkk ji salaamaaleykum may leen ma parole ñu ne ko bismillah mu ne julli farata la wala sunna la ñu ne ko farata la mu ne liqaam farata la wala sunna la ñu ne ko sunna la mu ne sunna bu buggee dàq farata nu ñuy def ndax duñ teg sunna boobu ñu julli léegi xam nga nu ñuy def ñu ne ah mu ne bu kenn li xaam ñu julli parce que bu ñu li xaamee histoire am ñu daal di julli bàyyi li xaam yi loolu boroom xam-xam yi dañ ci war a am hikma bu baax a baax a baax a baax di fay histoire yi parce que léeg-léeg nit ku taal dëkk dem ci dëkk rek daan ne wu loolu nangam nangam waa dëkk ba divisé wu te yow la te mënoon naa ñàkk te loolu ngay def loolu ngay wax noonu sunna la dafa indi problème te liñ nar a bàyyi farata la boole mbokk gi farata la julli gi ànd farata la su fekkee am na lenn loo xam dafa ñu nar a tàqale ba taal dëkk bi loolu dañ ko war a teg ci suuf def farata yàlla bi loolu amila bi al awaluun ñu njëkk ñi def nañ ko du jeex du jeex ay règle la yoo xam ne ba fii day valable ñun ñu koy def keroog bañ jàppee saxaaba bu mag ba di ko dóor dóor yu metti doomu yaasir doomu sumaya nu mu tuddati amaar ñu dóor ko dóor yu metti rey papa ji rey yaay ji mu taxaw di xool ñu ne ko yaa ci des ñu commencé ko dóor ne ko saagaal yonent bi nan la def ah dafa saaga alquran wàcc gaa yi ne kii kay de yàlla mu ne illa man ukriha wa qalbuhu alquran ñëw ànd ak moom non non kii wax dëgg yàlla dañ koo forcé yëf yi yeggul ci xol bi kon ku ñu forcé am nga ahkaam yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga ci aju gis nga règle boobu bu leeree ci ñun kon lu bëri ci sunu dund duñu am problème mais dafa am ñoo xam ne ñoom seen yoon ci ay qawaid seen yoon ci ay règle seen jaasi lan yor rek ak bombardé tas mbokk gi tas ànd gi séparé ci ay mbir yoo xamante ne wax dëgg yàlla jarul julli di di séparé beneen bi mooy saxaabatul kiraam ñoom dañoo xamoon texte yi ba pare ànd ànd kii def lii kii def lii ah barki démb wax naa ko fi xoolal masala gis yàlla Ibn Abbas dane yonent bi gis na yàlla yaay Aysa ne gisul yàlla est-ce que xeex nañ xuloo nañ toj nañ tojante nañ ay bopp tëj nañ jàkka ja est-ce que boobu masala kese la kii day wax lii kii wax lii ñu continuer di dund parce que yow masala boobu gis nga ko parce que kii mas gis na masala boobu jeex na tàkk xam nga lan mooy problème mooy est-ce que li nga wax masala la xadis la loolu mooy wax ah est-ce que lii ngay wax nii mooy comme am na benn yonent bu ñëw Sénégal ah loolu moom boo ko bëggoo gëm li ñu naan annaasu muxtalifoon waaye yàlla waaye loolu nag moom dañ koy teggi teg ko fee parce que du dëgg amul texte bu amee texte nag ñu laayante ci biir xat qaamati salaa am na fu mu ñëw benn yoon am na fu mu ñëw jàpp am na fu mu ñëw benn yoon am na fu mu ñëw ñaari yoon am na fu mu ñëw ñett wala masa bopp bi ruusikum imaam ahmad mu ne fii la ci cat bi rek fii catu bopp boo tooyalee nii ni Malik mu ne noo da ngay dem ba fii ñëwaat mais est-ce que dégg ngeen leen ñuy reyante l'essentiel que waa ji jàpp na ak yeneen ak yeneen yu dul jeexa ah ci nodd yëkkati dem ak wax allahu akbar allahu akbar wala wax ndànk am na wala amul est-ce que loolu jar na toj bopp jeex na tàkk kon masala yi su leeree ci ñun euh, dañuy xam ne wax dëgg yàlla jarul jarul jarul jarul ñu ci reyante dañuy war a yaatu dënn ñun ñëpp bokk mbooloo mi parce que benn jullit bu bàyyi mbooloo rek jullit yi perte nañ ñu fexe ñëpp ah ñu laayante ci biir xëy na sax yenn saa yi boo waxee ak waa ji dëgg-dëgg nga indil ko argument dana bàyyi lim nekkoon mu def li nga nekk xëy na yenn saa yi bokk ko leerale dina bàyyi loolu mu jàppoon mu bàyyi yow mu indi lii ngay surtout nag bu dee taalibe la ku bëgg xam-xam la ku imaanam dëgëral la soo ko nee nangam ak nangam bii nga indil ko ci lu leer wallahi day bàyyi li mu nekkoon jël parce que dëgg-dëgg moo ko ñor ba ca tegu ix- ayyuhal ahbab mooy ash-shafaqa wal mahabba fi shaqiq akbaru minha fi l axi lil abbi ashafaq lewet mbëggeel ñeewant ci ay frère gis nga chaque jour di nga gis ki nga bokkal ndey ak baay moom ngay gën a déggool ak ki nga bokkal baay lu waral loolu mooy deret gi gis ngeen Yuusuf ni mu mel ak Benyamin ne- nuróowul ak ñeneen ñi donte ne ñoom ñëpp ay frère lañ donte ne ñoom ñëpp ay mbokk lañ waaye chaque jour ay mbokk day am ñu bëggante trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop loolu dafay am yàlla moo ko def léeg-léeg ay nit bokk ndey ak baay bañante léeg-léeg ay nit bokk baay bëggante léeg-léeg ay bi nit bokk ndey bëggante léeg-léeg sax du ngeen bokk dara kee pël la kee séeréer la waaye dañoo bëggante ñoom ñaar kii du lekk bàyyi kenn ki loolu yàlla tabaraka wa taala moo koy def ndax ar arwaahu junudun mujandala fama taarafaha ictalafa fama tanakaraha ixtalafa kama qaala annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ruux yi bi ko yàlla bindee daf ci am yoo xam ne dañoo mbokkoo ya ca xamante dañoo mbokkoo bëggante ya ca wuute dañoo bañante mbokkoowuñu noonu la yàlla defee ruux yi yàlla daxa ja bindee ruux yi jaxase leen di leen dugal ci ndigg bàyyi aadama daf ci am yoo xam ne dañoo miinante bëggante soppante gis nga ruux yooyu soppante woon moo tax képp koo xam ne daja nga ak moom ci kaw suuf nga bëgg ko azal ngeen bëggante woon nga nekk ak moom azal la woon nga ànd ak moom azal la woon ndax ca arwaax yàlla boo dajee ak nit nga bañ ko rek démb ngeen bañante woon avant tey waaye lan la ñu sant mooy ñu jéem a mbëggante laa tadxulul janna xata tu'minu wala tu'minu xata taxaabu ala adullukum bi cheyin ida faaltumuhu tahaababtum afsu salaama baynakum du ngeen dugg aljanna lu dul da ngeen a gëm yàlla du ngeen gëm yàlla lu dul da ngeen a bëggante kaay leen ma wax leen benn mbir boo xam ne su ngeen ko defee yéen ñëpp ngeen bëggante tasaare leen jàmm ci kaw suuf fu ngeen dajale fu ngeen dajeetee dee leen nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam wa rahmatullah dee leen nuyoo suñ bëggee bëggante rek nañuy nuyoo képp ku lay nuyu waxuma an de an waxuma loolu assalaamu aleykum laa wax walmuslimaani ida tasaafaxa lam yabqa baynahuma zambun illa saqata ñaari jullit bu ñu dajee saafoo asalaamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salaam mbokk na nga def gëj naa la gis mbaa yaa ngi ci jàmm naka njaboot gi alhamdulillah ñoom ñaar bu ñu tàqalikoo rek bàkkaar yi wadd na foofu ñu taxawoon seen bàkkaar yi wadd na ñoom ñaar loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dee leen nuyoo kenn du la nuyu tout le temps di la nuyu nuyu bu baax nga noonu ko abadan dafa am benn xale bu jigéen dañ ko doon takk li may wax ni ak léegi war na mat war na mat fanweeri at boobaak léegi ñu koy tàkk mu yëgal ñu mariage am ñuy jógee fii jëm amu trois dem ci mariage bi bi ñu ñëwee xamuñu kër gi ñu gis ay xale yu football ñu ne salaamaaleykum waaw ñu ne xale yi daal di bàyyi arrêté football ñu waaleykum salaam ñu ne dañuy laajte fii benn mariage yóbbu leen ko fii ci quartier bi rek benn xale yi taxawal benn xale mu ne ah kay ah mooy iwaadu boobu mën a nuyoo ku mën a nuyoo kooku la moom la ñuy takk xoolal xoolal xoolal kooku allahu akbar xoolal melokaan bu rafet boobu xale yi xam day nuyu di nuyu bay nuyu xale yu ndaw yi ba xale yi xam ne kii ku mu romb da lay nuyu allahu akbar xoolal melokaan bu rafet boobu te loolu la ñu sant ñun ñëpp de bokk na ci màndarga yowmal qiyaam assalaamu lil maarifa ki nga xam rek ngay nuyu ba ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir yi lu ci gën dafa ne dafa ne tutimu taam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif yaa rasulallah mbir yi lu ci gën mu ne ngeen di jox nit ñi ñi lekk ñu ne ko ak lan mu ne ngeen di nuyoo ku ngeen xam ak ku ngeen xamul koo romb asalaamualeykum wa rahmatulah xam nga lu tax tey sunu daawa jàllul munoo nekk ci koñ bi koo romb di ko jaay maanaawan man sunnit laa ibaadu rahmaan laa daal di koy romb ginnaaw suba nga ñëw naan ko "Hey, lu mu lay wax booy xoolal taxawal ne yow da ngaa xam kenn ci quartier bi yow duñ la gis dëj yow doo dem ngénte yow bokkoo ak ñun yow da ñuy romb mel na yow malaaka nga di toflal nga yow naan booy yàlla nee na xoolal bu ñu fontoo ah yow yaa arrêté sa bopp il faut que nga jël xolu nit ñi ba pare soo dajeek ñoom soo waxee ñu déglu la waaw foog nga jël xolu nit ñi noo koy jëlee mooy nga jege leen ku la yëgal ngénteem nga dem ku la yëgal siitam nga dem waxuñu nga dem ci musique ba toog fa de déedéet heure ngénte bi heure tudd bi amul musique demal boo paree nga dem même bu amee musique sax demal boo ñëwee nga xëcc ko ah man de damaa ñëwoon jox ko li nga koy jox daal di génn ëllëg ak si biir loolu moo lay jural soo ko soxlaa nga woo ko mu ñëw soo ko yëgalee mu ñëw parce que diw ñëwoon na damay dem man tamit waxoon na ma ko jeex na waaye ñun duñ def dañuy dëkk ci koñ bi duñ nuyu kenn duñu faale kenn duñu kii kenn benn bis ñëw rek nga ñëw naan qaala allahu mu ne la xoolal booy sa qaala allahu yu tag ko fa xam ngeen lan moo tax ñeneen ñi ñeneen ñi di woote gaa yi wuyu leen ñeneen ñi gaa yi ñuy woote gaa yi wuyu leen booy am nañ fi ak ak ak am nañ fi dara booy na nga ñëw de commencé di la xem même loole fa nekk ah parce que dañoo ñëw ba foofu wax la ko fekk nañ benn xale bu jigéen bu meesu mees yoo xam ne kenn xamul nu mu toll paquet yoo xamante ne sawaay ma ñëw boobu daaw bi dafa tàng subhanallah boobu dañoo tàng ba mel ne jahannama ma ñëw fekk xale yi jigéen yi muuru toog mën nañu cinq ma ñëw nuyu leen salaamaaleykum mbokk yi na ngeen di alhamdulilah dañoo am ba ko ne conférence Adja Binta Thiaw moo koy def école Pa Njawar formation la na ngeen ñëw xale bu jigéen bu muurul bi xool ma ne ma waaw ma yow lu tax boole woo ma ci yow man dama dul jullit ngay wax ak ñi bàyyi ma ma ne ah def naa musiba ma ne ko wax wax nga dëgg de damaa juum wax dëgg yàlla waa ci nga bokk nga bokk wallaahi damaa juum waaw mu ne yéen ibaad yi nii rek ngeen def seen mbokk yi rek mu ne ko waa baal ma dimbali ma rek damaa jum man mi maa jum wax dëgg yàlla ci nga bokk te wax na wax na xam ngeen loolu dëgg la imaginez ndeysaan conférence bi jot mu ñëw wallahi ci conférence bi fa la dindee mees yi fa la muuroo ba fii may waxee yéen mu ngi ñëw xiyaamul layli tey ñëw na tey xiyaamul layli démb fii boobaak léegi am na 40 ans ñëw na tey julli ba léegi kol baa ngi ci bopp bi te bi mu muuroo daj na loo xam ne mburu daju ko ci biir fuur génne nañ ko seen kër lakk ay yéreem kaamil bi mu mayoon bi ma ko mayoon yaay ji jël kaamil bi bu ko dugal ci duus wallaay ñu génne ko ci kër gi muy fanaan ci benn terrasse taw bi di taw ci kawam sama kër la doon ndékkee fa lay añee fa la doon reeree ba guddi mu ne maa ngi ñibbi ndeke bu demee au lieu mu ne ma ci terrasse laay fanaan day ñëw rek lal sëram tëdd laa ilaha illallah kan lañu yàlla sàmm yal na nu yàlla sàmm yal na nu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko kon alhamdulilah nu war a góorgóorlu bu baax a baax yoral yoral xeet wi yoral xeet wi yërmande yërmande yërmande ak njéggal yoral xeet wi yërmande ak njéggal ñoo xam ne ñun ay wootekat lañ te waruñoo xool kenn di dem safara kenn kenn waruñoo seetaan yàlla di ko mbugal ah mission la boo xam ne wax dëgg yàlla ci ñun la ko yàlla gàll ah ñun ñi la yàlla gàll bu ñu xamoo suñu mission danañ xam ne waruñu seetaan kenn dem safara donte ne metti na waaye dañu war a nekk ay wootekat mu mu wa kazalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum noonu ngeen meloon ba yàlla xëy daal leen di baaxal noonu ngeen meloon ñëpp ci yéen dañ doon dem ay soirée di di di di di ba ay nit ñëw dajeeg yow daawa la waar la yóbbu la ci xiyaamul layli yi yóbbu la ci conférence yi yóbbu la ci dars yi yóbbu la ci tafsir yi ba nga gis li nga gis kon yow tamit noonu ñu la sauvé fexeel nga sauvé noonu ñeneen waruñu toog nii rek benn borom xam-xam bu mag dafa ñëw dugg ci lislaam mu ne yéen jullit ñi li ngeen am xamu leen ko dëgg la yéen di ngeen xeex ak yonent yàlla Muhammad ëllëg yow man xiyaam ngeen yor lu mel nii ngeen dem tëdd di nelaw talu leen julli talu leen adduna bi benn borom xam-xam yéeféer la dafa xool télé rek télé la xool télé mu gis màkka ñuy julli mu gis ni ñaa ngi wër ñi ñaa ngi wër ñee ngi dem safa ak marwa ñee ngi zam-zam ñee ngi ñee ngi ba ci yàgg rek ñu dégg benn nodd allahu akbar allahu akbar mu ne ñëpp ne tekk mu ne ñi doon wër daal di arrêté wër gi daal di ñëw rond benn rond ñi nekkoon safa ak marwa ñëw ñi nekkoon zam-zam ñëw mu ne ñu organiser benn rond kenn waxul kenn eh taxawal fi yow eh puusal nii eh bankas tànk eh noddu bi rek lañ dégg ñoom ñoom ñu daal di ron wër kaaba gi mu ne ñu toog 30 secondes mu gis kenn moo ñëw li mbooloo mi di bëri bëri bëri ëpp nañu 1 million personne kenn moo ñëw rek su waxee rek ñëpp topp ko allahu akbar ne nii ñëpp topp sami allahu liman hamida ñëpp sëggi mu ne allahu akbar ñëpp sujjóot mu ne non ñii bu ñu xamoon lu ñu am gouverner nañu àdduna xoola kenn mooy ju- julli bu ñuy julli imaam bi mooy wax rek ñëpp topp ko fii lu mu fees fii ba su nit ñi déggee allahu akbar ñëpp topp imaam kabar na allahu akbar ñëpp kabar nañ wala mu ngi jàng ñëpp déglu nañ ko rukkoo na ñëpp topp nañ ko siggi na ñëpp topp nañ ko sujjóot na ñëpp topp nañ ko xoolal lii rek koor lañ nekk weer feeñ na ñëpp woor weer feeñ na ñëpp wari tey la àjjuma joxuñu kenn convocation ne ko tey la àjjuma ah soxla nañ leen jumaa ja bii te da ngeen ñëw julli si convocation ah ah kan lañ convoqué tey vendredi nga ñëw julli si xoolal loolu jullit ñi am mais xamuñu ko xamuñu li ñu am wallaahi buñ ko xamoon yilif nañ àdduna bi mais maal asaf xoolal lislaam tey ni mu toll ci àdduna bi amul ku ko jiite amul ku ko jiite kee kee mi ngi këram toog kee ngi këram toog kee waa Sàmba la kee ñoom Moodu la ñee ñoom Ibra la ñee ñoom ñee ñoom ñee ñoom ñee ñoom ku nekk kullu hizbin bi maa ladayhim farihun soo rombee benn mbooloo ibaadu yi ñooy xiyaam quoi xam naa ñoom la quoi ñii ñooy xiyaam ñii nga romb ñeneen ñaa ngay tëgg di feej nga romb ñaa ñaa nga ah jamal ñëpp tàqali ko kenn xamul lu xew ku nekk ne yow yaa dem àjjana ñee safara lañ dem amul njëriñ de amul sens foog ñu nekk ay jullit foog ñu bëggante foog ñu nekk benn waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu waskuru nicmatallahi alaykum is kuntum aada fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi nicmati ixwanan wa kuntum ala shafa xufratin min annar fa anqazakum minha wala loolu du alquran dan loolu yàlla woon dëgg bu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla won neen bu wërsëgal ñu sori ko ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ay insha allah bismillah 4 11 12 13 14
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 4 5 ans 7 7 la 7 8 9 10 4 la 7 8 9 10 لقد كانوا في يوسف لقد كان في يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين الله أكبر
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب فألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك أحسن الله إليك nañu la yàlla fayal yiw sunu borom subhaanahu wa taala nee na laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi aaya lisaailin mu ne ma zaala siyaaq fi qissati yusufu alayhi salaam aaya yi dañul doomu ndey yi mbokk yi di ñu nettali histoire yonent yàlla yusuf chaque jour ñu fàttali ne alquran du téere barkeelu alquran aw dundin la système de vie la yàlla daf ñu jox téere bi globalement mu nekk suñuy loxo sunu dundin yëpp ñu war koo teg ci téere bi jël ko ci musiba bi ñu gën a dal tey ci àddina mooy téere bi di di baaxal sunu àdduna di baaxal sunu àllaaxira ñu mu jël ginnaaw téere bi suñu yoon ci téere bi faale wuñ ko sax xamuñu sax téere bi lu muy dox 95 musulmans yi ci Sénégal soo leen doon laaj alxuraan hol ko yahata hol ko hol ko ni faandaare tellineede alqur'an e mooɗon heewɓe men njaabotaa ko naamngal ngal ñëpp ci ñun boo leen doon laaj alxuraan lu tax yàlla wàcce ko lan mooy jubluwaayu yàlla jox leen alxuraan ñu kenn ñu bëri ci ñun duñ tontu ñenn ñi dañ laa la waxee alxuraan day teel a barkeelu la rek xaaral ma raay sax daan ne nii ci kanam gi wal ngay gis gars yi yoral waaw ndeysaan allahu akbar alxuraan mbokk yi du téere barkeelu kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaas min azulumaati afalaa yatadabbaruuna alquran ñaata aaya la fa zakkir bil qur'ani man yaxaafu waid ñaata aaya la ñaata aaya la yàlla di wax ne nañ gëm alquran zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan allazina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون sunu borom ne laqad kaana ca dëgg-dëgg nekk na wala nekkoon na fii yuusufa ci yuusuf wa ixwatihi ak ay mbokkam aaya benn màndarga ibra lissaa'iliin an axbaarihim yéen ñiy laaj histoire yuusuf yàlla nee na histoire yuusuf dafa war a nekk ci yéen kiimtaan ibra histoire yuusuf dafa war a nekk ci yéen lu ngeen di def repère yéen ñi gëlëm yéen xale yi góor yi gëlëm nga xam ne tey li leen jombal mooy rosa cheveux indien posé xef posé sein posé posé posé posé posé yéen xale yu góor yooyu loolu jombal suuratu yusuf aaya li saayidin yéen aaya la pour yéen waaw yow mi bëgg a yar say doom suuratu yusuf aaya la pour yow yow mi nekk baay ci biir kër gi suuratu yusuf yéen ñi nekk ay doomu baay suratu yusuf aaya la pour yéen suratu yusuf aaya la pour tout le monde yàlla moo tax yàlla mu ne laqad kaana fi yusuf wa ixwatihi aaya li saailin yéen ñiy laaj ah wa ma kaana lahum min ahwaalin gariba histoire yusuf la fa nekk ci ay mbir yu doy waar ay mbir yu yéeme yu kii yu kéemtaane yéen ñooñu suratu yusuf kéemtaan la ci yéen ndeysaan ixwatal iman asaailuna man yatawaqqa'u minhum as-su'al عن المواعظ والعبر والحكم والعرب يستعملون هذا في أساليبهم للتشويق كما قال السموال نينا kii laaj mooy ki nga xam ne mi ngi xaar di tontu di xaar tontu foo gis kuy laaj la muy laaj alxuraan ne amma yatasaaluun ani nabail dala ci teg um fiihi muxtalifuun tontu yi commencé kalla sa yaalamuun summa kalla sa yaalamuun yàlla commencé wax lim def alam naja'alil arda mihaada wal jibaala awtaada wa xalaqnaakum azwaaja gis nga di la wax lim def loolu mooy réponse yi da ngay laaj xabaar bu mag bi yàlla mën a maa lay tontu jeex na tàkk wa yasalunaka ani ruux quli ruux min amri rabbi wa yasalunaka ani saa ka annaka xafiyun anha wa yasalunaka ani saa ayyaana mursaha chaque jour boo gisee kuy laaj li muy xaar mooy ñu tontu ko moo tax ñi ba ñu laajee ci histoire Yuusuf mu ne ñoom ñiy laaj mooy ñi nga xam ne dañuy xaar tontu gi mu nekk an mawisa mu nekk ak waar wala mu nekk ak ibra lu nit di day talu dégg ko rek daal di comprendre nee na arab yi ak wal xikam nee na arab yi ñoom dañ doon utiliser méthode boobu asalib li tashwiqi pour lan pour yow mi nga xam ne yow la ñuy waxal nga ne tekk di déglu nit bu buggee waxtaan ak yow poser la question lu muy xaar nga répondre ko damaa bëgg waxtaan ak yow mais balaa may wax ak yow dama laa bëgg a laaj ndax yow da ngaa woor wala wooroo yow dama bëgg waxtaan ak yow bala mais balaa may wax ak yow yow jullit nga wala doo jullit mu ne la ah man ma tudd Abdallah nga naa ma dem jullit sama carte d'identité ngi nii ma ne ko non non non yow doo jullit mu ne billaahi jullit laa mooy jullitu billaahi nga dafa am mbasin bu ñuy jaay ci marché bi balaa ngay gëm ne mbasin la borom ki lay jaay ne billaahi mbasin la mbasin billaahi moom la gaa yi tuddee mbasin billaahi boo ko fóotee perte nga xam ngeen mbasin billaahi est-ce que xam ngeen ko anak ah am na mbasin billaahi balaa ngay gëm ne mbasin la waaji waat waaye est-ce que le seli mbasin la mu ne billaahi mbasin la xam nga ne jullit bu dem bay waat naan billaahi jullit laa kooku des na de wala yow xanaa doo jullit waaye tax nga may laaj loolu ah mais li ngay def ni nag mu ne la xaaral xaaral daal di génne carte d'identité bi ne la waaw nga gis Abdallah ah Abdallah da lañ fi bind mu ne la billaahi jullit laa sama papa jullit la sama yaay jullit la waaw man gënoo maa gëm yàlla man jullitu billaay allahu akbar comme basin billaay jullit jarul waat billaay jullit la jaru ko jullit boo ko gisee rek nga xam ne kii jullit la xoola saxaabatul kiram dañoo nekk ay jullit ba yàlla moo leen taggal boppam muhammadun rasulullah wallazina maahu ashidda ruhama taraahum rukkaan sujadan yabtaxuna fadlan min allah wa ridwana wa siimaahum min asari sujud allahu akbar ndeysaan galal gaa yi doon aboubacar bu ne tëll ñu ne haza saahibu rasulullah ndax niñ ko xàmmewee jullit jarul waat sa comportement sa col sa melokaan sa kàddu ñu xam ne kii jullit la innahu muslim kii jullit la muslim gis nga tubaab yi sax ñoom dañuy xàmme jullit tubaab yi nga xam ne amuñu diine ñi ci ëpp dañuy gis kenn rek ñu ne kii muslim am na benn phénomène bu am fan yi est-ce que si yéen a ngi koy seetlu ah joueurs yi joueurs yi nekk Europe nga xam ne dañoo dañuy football su ndogu jotee dañuy arrêté match bi joueurs yooyu ndogu Sénégal ñuy dàq ay joueurs parce que dañoo woor déggu leen li ma wax de ay joueurs yu woor Sénégal ñu dàq leen ay joueurs yu yu yu yu yu woor Europe joué arbitre bi day arrêté match bi ñu may leen ñaata pour ñu dog dugg ci dugg ñëw nii ci ah ñoo jox leen seen tàndarma jox leen ndox ñu kii jox leen bom panaana ñu lekk dugaat ci match bi la il Sénégal nga woor ñu ne la jibit gën nga doo joué dangay jàng gëm yàlla doo joué ah la ilaha mais ñun ñun est-ce que ñu ngi xool suñu bopp est-ce que ñun réellement li ñuy wax ne ñun jullit lañ dëgg la nga gis jullit buy dàq jullit sa ah da ngay jéem a da ngay gis sama waa ji sax mooy recruter fi ñuy liggéeyee ana ñi woor ñu ne ñu mën a taxaw leen nii ana ñi woor ñu ne ñu ne waaw waxal doo tudd yow nga gis waa ji ne ah waaw wooruma de daal di xëcc ndox wooruma maa ngi nii moo tax ñu ne waa jooju kooku ndaw soos yor iPhone naan day maye iPhone pour naan ma ne kooku bu ñëwoon fii wallahi wallahi bu indi woon 16 21 iPhone dana jeex dana fekk fii ku woor bañ ne suba la julli gi mu ne ko dogal iPhone a ngi nii mu naan ñii yéen est-ce que nañ mën a imaginer loolu Angleterre ñuy arrêté match compétition yooyu nu ñu grawee nga xam ne daanaka ab yàlla lañ ko def en rek ñëpp di gis arbitre day siffler bu dee turki moom wallahi dañuy julli jot dañuy nodd ci stade bi ñu julli continuer match yi ah, yéen waa Sénégal nit woor ngeen dàq ko bu julli jotee ay bu ju- arbitre bi waxoon ñu ne la la mu ne dañuy julli Eh, arbitre boobu dooru ko rafet koo koy xoolal dañ koy yóbbu conseil d'arbitre ne ko yow demal Arabie Saoudite demal demal yow de ko yow yow màkk nga mën a dund mënoo dund fii la lañ lay wax quoi waaw waaye booy bi day gëm-gëm lu quoi xoolal ñun gënoo ñoo gëm dañuy def dóor match bi ba pare doog a julli lan la yooyu lañ lay may de dañuy jàng-jàng yi ba pare doog a julli wala sax yenn saa yi ñu ne jàng yee gën a foor julli ji Eh, war nañ xoolaat suñu bopp affaire bi du ay waxi kese de li ma waa ji doon wax yéen tubaab bi danañ leen raw àdduna raw leen alaaxira wallahi dina nekk dëgg àdduna raw nan mu nee na ma gis nga yéen africain yi nii yéen ñii li ngeen rawee golo yi la leen tubaab yi rawee wax na dëgg de wallahi wax na dëgg ñun li ñu rawee golo yi loolu lañ ñu tubaab yi rawee te danañ ñu raw àdduna nag nar ñu raw alaaxira imagineel ki nga xam ne dafa woor nekk ci compétition yooyu ba pare timis jot ñu may ko na dem ndogu ndeysaan parce que dafa woor parce que wax na leen ne bu timis jotee na ngeen arrêté match bi damay ndogu sinon damay génn ci terrain bi moo tax boobu ñi julli di ñoom ñooy ñooy teg ñooy teg seeni sart te dañ leen koy defal match bi jot arbitre bi sifflé taxaw ndeysaan waa ji jo- jog ñu jox ko ndoxam mu gallax ndiku def li muy def lekk ay tàndarmaam yooyu banaanaam duggaat ci terrain bi ay xanaa foofu Makka la Angleterre Londres laa ilaha illallah ñun fii ci jamono boobu nga waxuma sax ndogu de waxuma ndogu de ànd naa fi ak benn chauffeur taxi barki démb rek ñu romb ba forox caaye gaa yi wër ko gaa yi wër ko forox caaye 10 heures ma ne saa waay salaamaaleykum naa ma ne ko xool mu ne moom moo kii de ñett lañ woon sax kenn kay ñaar ñi jeexal nañ kii moo des waaw fii ngay gis sénégalais yi ba pare lu gën a rustu nga gis taxaw ci mbedd yi di tux fekk yow wooroo doo yow doo doo sax nëbbatu doo sax nëbbatu fii nii fii nii fii fii fii fii fii say ngi nekk nii ci kanam am na fi benn mbaar boo xam ne gars yi foofu la ñuy añee fii fii ci kanam boo tuddee seng loolu jaadu na ci bëccëg weeru koor ay nit di jaay añ ñii di jubilé ñun wooruñu di di ko manifester ah wooruma ban woor loolu diine la dañ leen xoolaat suñu bopp mbokk jullit yi yéen ñi laaj histoire yusuf laqad kaana fi yusuf wa ixwatihi aaya lissaa'iliin iz qaalu la yusufu wa axuuhu ahabbu ilaa abina minna wa nahnu usba mbokki yusuf yi dañoo dajaloo ñu daal di wax iz fàttalil qaalu ba ñu waxee la yusufa yusuf mi wa axuuhu ak frère am benyamin ñoom ñaar ahabbu ila abina sunu baay ñoom la gën a bëgg minna ci ñun xoolal ñoom jar na leen mbir mi ñor na leen bañ koy waxante seen biir yemuñ ci ñu woote en famille seen biir néegu yaay ñu ne ñun sunu papa ñaar ñee la gën a bëgg ak ñun di di di di di suuraa lan la ñuy def yan pexe lan la ñuy utiliser ah lu tax paa bi gën leen a bëgg te te te du loolu de paa bi du question def leen a gën a bëgg mais ñii ay paa lañ ay mag ay ponkal ñii ñaari xale lañ te seen yaay dee na paa bi nu muy def gisatuñu gisatuñu ndey amuñu ko leen jox ñu lekk amuñu ko leen jox naan moom mooy def lépp mais ñaar ñooñu foog mu toppatoo leen wax naa leen démb yaayu Yusuf ñaari yoon la am doom premier bi mooy Yusuf te problème bu garaaw la ci am ñaareel bi mooy moom gisul sax doom ji bi doom ji di génn boobu la génn àdduna imagine ñaari xale yooyu métit yooyu coono yooyu tumaranke yooyu nga xam ne amuñu yaay Yuusuf sax papaam daf ko mujjoon jël jox ko benn bàjjanam na ko yar benn tànta benn bàjjanam bu mu bokkal benn sëru Yaaqub la ko mujjoon jox ah loolu ngeen doon dégg biñ ne Binyaamin dafa sàcc ñu ne bu sàccee frère am sàccoon na benn ceinture ceinture Ibrahima la woon bu mu doon takk bàjjan ji mu daal di koy gis daal di koy takk ci ndiggam ni xale di gisee dara rek takk ko ci ndiggam dem ak moom ñu koy wër ndeke moom moo ko takk daal ci wàcce yéreem xamuñu ñuy wër ba gis ko ci moom ñu ne ko yow sàcc nga fekk sàcc ko mbir yu mel noonu xale yooyu condition yi ñu doon dund seen baay bëgg leen di leen toppatoo frères yi jàpp ne ah kii ñaar ñii la gën a bëgg ak ñun te ñun usba ñun mbooloo lañ jamaa izhum ahada ashara ñoom fukk ak benn lañ woon ñee nekk ñaari nit ñaari nit ak fukk ak benn yéen ñaar ngeen ñee fukk ak benn lañ ba pare nekk ay mag ba pare nekk ak seen baay nekk ak seen ndey ñii gisuñu yaay dëgg-dëgg kenn fii ci ñun bu doon ñun la comportement boobu nooy def ak xale yooyu da nga leen di bàyyi sa ñaari doom yi da nga leen di sànni déedéet da nga leen di toppatoo suñu waree dem école da ngay jàpp yóbbu leen bu ñu waree sang da nga leen di sang suñu waree lekk da nga leen di lekk suñu séddale dara foog nga fàttaliku leen parce que ay xale lañ te nekk ñu fi lu tax parce que seen yaay bi leen waroon defal loolu seen yaay nekku fi kon papa ji foog mu jël ci ñoom ñaar yëpp foog mu jël place yaay ji waaye foog mu jël place léegi nag mag ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci kër gi gis xale yi ñoo am accès ci paa bi ñoom lay waxal ñoom lay waxtaanal ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñu daal di dajaloo ne yéen xam ngeen lu xew paa bi ñun bëgguñu paa bi bëgguñu de lu tax paa bi bëgguñu parce que paa bi duñu wax ak ñun paa bi ñee lay waxal paa bi ñee lay fab paa bi ñee lay boot paa bi ñee lay reetaanandool paa bi ñee lay lekkandool man am naa frère boo xam ne benn jour la ko sama papa dóor ci boolu lekk paa bi génn na àdduna ñoom ñaar bokkatuñu bool suñ tegee bool bi ne ko kaay lekk parce que paa baa ngi toog day dem ci jigéen ña toog foofu paa bi ne ko yow yow góor guy lekk jigéen nga fii laay lekk lekk ak paa bi parce que benn yoon la ko dóoroon kurus la ko dóor kurus ci bopp bi kurus bi daf ay ay per daal di wàcc parce que ni mu doon lekkee paa bi dóor ko kurus bi keroog la araamal lekk ndog paa bi day am yenn saa yi ci famille ñoo xam ne dañuy ragal seen papa wala dañuy rus paa bi wala wala mais imaginer xale bu ndaw xale bu ndaw ñeme naa ñëw fekk papaam di lekk sax mu dugg ci biir bool bi ci yoonam wala mu ñëw nii nii bool baa ngi nii mu ñëw toog fi ci kaw paa bi nga xam ne paa bi doolu sax mun a lekk parce que xale bu ndaw la léegi nag ponkal yi paa yi grand yi bu ñu gisee loolu ñu ne kii kii kii def ñoo bañ loolu xam ngeen ne erreur la kon frère Youssouf yi erreur bu rëy lañ def waaye nag bu leen fàtte seytaan moo def loolu pour yàq diggante bi pour yàq kër gi parce que ñoom ay doomu yonent lañ kon foog iblis ñëw bëgg a yàqal yonent boobu waaye bëgg a détourner ay doomam bëgg leen féewale mbokk yi ci yàlla ñoom ñu ne ah yuusuf ak rakkam ahabbu ilaa abina sunu baay moom la gën a bëgg min naa ci ñun te wa nahnu usba te ñun dëgg-dëgg ñun mbooloo lañ naka ngay jëlee ñaari nit bàyyi fukki nit ak benn inna abana gis ngeen xarfu inna lañ utiliser dañ koo dëgëral inna abana ana ñi jàng fi ñi jàng arab ñi jàng fi arab ana ñu élèves yi lan moo tax mu ne aba waxul abu waxul abi ah nasb la inna xarfu nasbin wa tawkiidin ah loolu ngeen jàng moo tax mu ne inna aba bu doon kaana lu muy wax ah kaana abuna bu doon fii lu muy wax abina gis ngeen xarf yooyu mu nekk day liggéey liggéeyam inna abana sunu bàyyi ñu ne ah la fi dalalin mubin démb ñoo ngi doon jàng mubin ci seytaan aduun xoola ñoom li ñu wax inna abana ñu ne ñu ne la fi dalalin suñu papa dafa réer ku réer la yemuñ ci ne paa bi daa réer waaye ñu ne réer goo xamante ne ñëpp ñëpp ñoo xam ne paa bi daa réer mu biin paa bi dafa dof waaw loolu gars yi booy dox paa bi con la quoi paa bi du nandute quoi non paa bi seer la quoi non paa bi xamul nu mu demee quoi yooyu la booy di dóor yooyu ngeen di dóor fii di waaw nga gis ñaari frère yi non non non allo non paa waaye paa bi ne non non paa bi comprendre quoi non paa bi seer la quoi foog ngeen wax ak moom kan mooy seer sa baay waaye paa bi dafa con quoi paa bi xamul nu mu demee quoi non paa bi foog ngeen wax ko dëgg xoolal xam nga lan la man dama naan tat sax wax ko raay waaye dam toog yàmbaa ba ñëw nag ne paa bi net naa ne xoolal gis nga tey naa la wax ngeew yow ngeew laa lay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu may wax nii gis ngeen ko wala gis leen ko dund ngeen ko wala dund leen ko du jeex nga gis ko wax loolu pa tat laay def wax paa bi ngeew waaw fii te te te te yow bi nga normalee munoo wax dëgg nga ne da ngay man di wax dëgg loolu la mbokk yi suuf yi di wax ni mu ngi ni réalité bi benn la waaye wax leen paa bi dëgg paa bi di ngeen koo ragal man nag ragaluma ko parce que man yaakaaruma ko ah xanaa tey xanaa tey xanaa tey nga ko yaakaarul démb bañ lay bañ lay bañ lay boob di la fab ngay uweewee guddi di yuux paa bi bu nee nii nii ba sonn mënu ci dara mu ne yaay waaye am waay man sonn naa damay xëy suba boobu de moom yaakaaroon nga de tey nag ndeysaan am nga ndomba tànk am nga daraja am nga benn martaba ngay fuuy fuuy benn waaye daa am alal ju bari réew ba dof ñëw fekk papaam toog mu ne ko dama laa soxla paa bi ñëw toog mu ne mu jox ko kaye cent page ne ko damaa bëgg lépp loo ma mosoon defal nga bind ko fii ma fay la paa bi ne ah mu ne wëy xoolal bul fàtte kuusi affaire yi kaye bi gi xoolal bul fàtte dara lépp booy góor gi dóoral dama koy waay xoolal je suis largement monin monin ah bi ne nday na mu ne kaay wax ak sa doom yaay ji daal di ñëw ne lan la ah déglu lu mu wax nee na kaye bi nañ bind liñ ko liñ ko defal yëpp mu fay ñu waaw allahu akbar yaay ji xool ko ba ñaane waa man de xam nga lu ma bëgg nga dugal ma ci sa biir biir bi rek juróom-ñeenti weer ma nekk foofu di la tulli di bërëngu ba mu nekk neuf mois ma génn loolu dong laa bëgg dugal ma sa biir ba moom neuf mois ma génn papa ji nag waa léegi sa yaay moom bu paree loolu boo defee loolu pare war nga ñëw man tamit ma wax lu ma waaw maa ngi jéggalu quoi jéggalu maa ngi jéggalu xam nga que penalty bi gën a garaaw Sénégal mooy jéggalu da ngay def la papa rek nga yooya jéggalu eh jéggalu quoi jéggalu waaw waaw maa ngi jéggalu quoi waaw bëggoor gi jéggalu quoi vraiment comprendre ma woon quoi xaw ma woon ne affaire bi nii la quoi ah yàlla na yow yaakaar nga ne mën ngaa fay sa ndey ak sa baay kan moo mën a fay ndeyam ak baayam amul ci kaw suuf ku mën a fay ndey ak baay benn xale bu jigéen da ne yaay yow da nga ma jaaxal moom nag dafa muuru nag ndeysaan muuru mu bëgg yaay ji muuru yaay ji day jouer théâtre théâtre kat bu mag bu jigéen ay doom yëpp ci ñun lañ nekkoon xale bi nag ndeysaan am na ngëm yàlla day muuru wax na ba sonn yaay ji ba ñu muuru benn bis rek mu attaqué mère bi histoire yow yaay yow loteree muuru sa yu bon yi ngay sol ah yaay na wee bu dee sagar laa sax maay sa yaay maa la ëmboon yemal mais même bu dee sagar laa maay sa yaay maa la ëmboon respecté ma tuuti xamal ni ngay waxee ak sa yaay même sa yaay bu dee ku bon la moo la ëmb sa papa même bu dee ku bon la mooy sa baay moo la jur mooy foog nga respecté leen xoolal alxuraan suñ ko doon dund duñu am problème yàlla mu ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye fala tutihuma waaye wa saahibhuma fi dunya maarufa wala loolu daaye sa papa ak sa yaay ñu ne na yàlla nee na même buñ dee dañuy bokkaale même buñ dee ay bokkaale kat suñu la nee kaay bokkaale bul bokkaale waaye bul taxaw ne bokkaale wu ma bokkaale na déedéet bul def loolu xoolal ah waaw papa waaw lu tax ñuy def lii ah parce que lii moom nga wax gi nooy ngay wax ba génn ci mais ñoom bu ñu la meree ci loolu sax yàlla mu ne wa saahib huma fi dunya maaruf lan mooy baatu maaruf baatu maaruf mooy lan defal lu njekk Sénégal da ngay dégg ñu ne waaw sa papa buy naan sangara sax da nga ko war a jëndal sangara loolu ba naay la loolu du diina de yow kay bu la ñaanee xaalis nga koy jox waaye dem jënd li sangara ne ko déedéet man du ma jëndi sangara parce que sangara sama diina daf ma ko tere xaalis nag a ngi nii yaa xam loo jënd kon xaalis laa la jox mais amoo droit dem jëndi sangara de nga dégg ñu ne booy julli bu la sa jëkkër woowee da ngaa war a dagg julli gi dem muy jëkkër loolu ba aaya la Sénégal ak ñoo di am diine booy julli bu la sa papa woowee da ngaa war a dagg julli gi loolu fan lañ ko bind sa jëkkër bu la gërëmee àjjana nga jëm yooyu fan lañ ko bind sabiyan sabiyan wala kaana nabiyan ñun dañoo yor diine boo xam ne ma anzala allahu biha min sultaan amul fenn mbokk yi mbokk yusuf yi nee nañ seen papa dafa dof inna abana la fi dalal bu ñu yemoon ci dalal rek baana mais ñu ne mu biin dof la boo xam ne ñun sax xam nañ ne kii góor gi dafa kon dof la yow paa bi ngay waxal non paa bi kii góona bu yàgg sa papa léegi ndeysaan da ngay am ak sa papa problème sa xarit yëg ko ñëw di bëgg a régler problème bi ànd ak yow ah ne la non baalul paa bi waaye ban baalu waaye paa bu kon bi man yaa ma fi indi ah waaye paa bi waaye waaye xoolal ndeysaan allahu akbar te ndeysaan soo xoolee loolu lépp paa bi sa jàmm la bëgg lim lay tere wala fi mu lay wala fi mu lay wala wala sa jàmm la bëgg te ndeysaan gis nga situation bi bu mettee rek léegi ñu woy sa pap te moom su ñëwee seex bi te moom su ñëwee mbokk yi allahu akbar sama doom la de wallaay sama doom la doom la de ay benn waaye dafa sàcc ci koñ ci koñ bi la dëkk mu dem sàcc ci koñ bi ñu jàpp ko balaa gars yi di xam ne kii ci koñ bi la dëkk fekk yeew nañ ko ci pot lampe bi dóor ko dóor yoo xam ne ba muy perdre connaissance ñu wooy papa ji ndeysaan ñu ne ko jàpp nañ diw dafa sàcc yeew nañ ko ci pot lampe bi dóor nañ ko ba diggante dund ak dee la nekk paa bi daw solul dàll ñëw xool ko muy moom rek paa bi xëm paa bi noonu la xëmee quelques jours booy bi dee bu ma kenn wax fii nag xam naa ko waaw nañ noppi mu jàll ndeysaan paa bi loolu moo ko jàpp paa bi looloo ko jàpp ndeysaan ni mu gisee xale bi niñ ko def dóor yu metti yooyu deret ji ni mu ko sangee oh, looloo jàpp paa bi paa bi tamit daal di faatu nit mënul fay baayam nit mënul fay ndeyam soo tabaxoon sato soo leen yóbboon ci ay soo indi woon soo dara mënoo leen fay abadan kenn ci ñun mënu ko kenn laa wax mënu ko kenn mënu ko kenn sama doom bu jigéen dafa am doom ñu ñu ñu ñu paqueté ko ne ko dama seen kër nga noppalu mu ñëw ñun dañuy xëy mais guddi gi xale bi du nelaw ndeysaan ñun ñooy jël di fab di fab di fab bu toogee guddi gi nelawul bu ma déggee ma ne ko indi mu jox ma ma ne ko demal nga tëddi ma ma gàddu di wër saal bi mu ndeysaan benn fajar mu ne yaayam si ti ti ti ti man mbaadu nii laa meloon sa yaay ne yaayam ne ko yaa ko yaa ko gënoon garaaw kii mu ne kon man yoreel naa leen àq de gis nga man mbaadu nii laa meloon yaayam ne ko yaa gënoon garaaw sa doom mu ne allahu akbar baal leen ma gis nga doomu aadama walaa ngay xam sa baay lim daj ci yow nga am doom fekk amoo doom doo xam sa papa lim daj ci yow gis nga ni nga bëggee sa doom noonu la la sa papa bëggee woon yow da nga am doom bëgg ko suñ la woon reyal sa papa nga rey doom bi sa papa ngay rey ndax da nga naan sa waa sama doom noonu pourtant sa papa noonu la la bëggee ni nga bëggee kii noonu la la kii bëggee parce que yow kii nga jur moom kii la jur allahu akbar waaye yooyu yëpp dañ ci dul bàyyi xel bàyyi utiliser yenn saa yi ay termes yoo xam ne ci suñu digganteeg suñu papa yenn saa yi nga wax nga gis ku tiim papaam saaga ko wax ko lu ñaaw wax ko lu bon yenn saa yi nga gis ku rey papaam dóor papaam yat mu dee ñaata yoon ngeen ko dégg Sénégal rey papaam ba pare tëmbal ko ci teen ñaata yoon sotti papaam essence taal ko am na koo xam ne bëgg donn rek bëgg donn bëgg xaalis bu mu demee Europe la reyee papaam pour bëgg donn pour bon noonu rek de police ñëw gendarmerie ñëw di enquête di enquête bañ jàpp ko moo rey paa bi ngir bëgg doon jël alalam dem loolu ngeen defe ne lan la mooy lii mbokk yi su fi wax inna abana dafii dala xolal baatu dalaal nit yéen ñi jàng arab ni mu graawee nit tiim baayam naan ko inna abana la fii dalaal yemuñ sax daal waaye dalaalun mubiin mubiin du xam ngeen mooy lan démb waxoon naa leen ko yemuñ ci loolu ñu ne léegi lan mooy solution pour terrain bi vide uqtulu yuusuf rey leen ko pour daal solution ñu am ko mooy xale bi dañ koy éliminer dañ koy rey su la àdduna jàppee ba ngay rey koo bokkal koo bokkal baay koo bokkal ndey ak baay yenn saa yi nga dégg ñu ne mag gi moo rey rakk ji rakk ji moo rey mag gi ah ñaata yoon ngeen di dégg loolu ci biir Sénégal jarbaat bi moo rey nijaay ji nijaay ji moo rey papa jee rey doom jee rey ay mbokk yu jege ñaale nga gis ñiy rey ku nekk di jéem a rey sa moroom uqtulu yusuf rey leen ko yemuñ ci loolu ñu ne awitruhu ardan wala ngeen sànni ko ci suuf soo xamante ne bu ngeen ko fa yóbbee sànni ko jamais mu daal di del siwaat soo amee muus nga bëgg dootul des ci kër gi te bëggoo koo rey bëggoo koo posone nga dugal ko ci saak nooy def da ngay dugal oto nga dem ba nga xam ne fu mu dul ñëwaat nga sànni ko ci àll ba ñibbi waaye yenn saa yi bu dee yenn muus la dañuy ñëwaat de da ngay ñëw rek gis nga mu ne la nga da ngaa mënal dara yow waaye yow ki la fi indi moom ma fi indi nga ànd ak ma fi jële da ngaa moom gàlle bi nga ni laa ilaha illallah kii du muus bi waaye mu ne la man la kay da ngaa fi moom yaa moom dëkk bi waaye yow da nga ma fi mën a génne yow fii laay toog nga bàyyi muus mi mu toog jàpp njàmburam nga am xaj génne ko xaj bi ñëwaat nga am muus génne ko mu ñëwaat te yaa nga moom kër gi muy génn waat loolu la lay wax dafa ko dul dégg rek da nga war a mun a da nga yow nga defe ne ngeew la fekk dafa leen ne moom moo gàlle bi maa yow ñoo fi yem ki la fi indi moom fi indi waaye yow man waxuma la nga yekkal ba mais boo lekkee ba pare ma ñëw lekk est ce que xam ngeen ni muus kenn waru koo génne ci kër xam ngeen lool ah innahu tawaafiina min alikum yonent bi nee na muus dafa bokk ci waa kër gi ni nga amee doom mu ne ci kër gi noonu la muus bi bokkee ci kër gi muus kenn waru ko génne kër innahu tawaafina min ahlikum muus léppam dafa laab muus du sobee leer na wala leer muus du sobee comme xaj xaj ñetti xaaj la boroom xam-xam yi dañu ne xaj am na lu laab am na sobee ñetti borom xam-xam yi dañoo xaaju ci xaj ñett dafa am ñoo xam dañoo gis xaj lépp laab am ñu gis ne xaj dafa am lu laab am lu am ñu gis lépp sobe la nuróowul ak muus muus nag yonent bi nee na innahu tawaafiina min ahlikum muus day wërte ci kër gi la bokk kenn amul droit di ko dóor yàq di ko posone di ko di ko di ko di ko di ko mën nañ koo dàq nag xëy na bëggoo kër te te xëy na ñun ni ñu ni ñu nekkee ay africain di dund ak rabu àll yi moo tax mais xool leen tubaab yi muus mi dañ koy utal néeg utal koy bool utal ko fu muy lekk utal ko toilette muus mi day dem bay ubbi robinet di naan muus mi bu duggee ci oto bi xam na fu muy toog day ñëw toog place am ñu takkil ko ceinture mu ne nii bu wàcc jotee ñu tekki muus ma wàcc muus ma bu ñu duggee ci kër gi muus ma xam na fu muy toog parce que dañ ko yar waaye ñun booy ana mbolda yi ñu rëbb muus yi booy ana laas bayre yi ñu booy muus bi dama ko fekk muy nelaw ma dóor ko benn mbolda gis nga ñun loolu ñoom loolu ñu yaree ñàkk yërmande lañ ñu yaree ñee xoolal rabu àll yi ni ñu gis xaj xaj xaj xaj laa ilaha illallah xaj boo xam ne moo ëpp nit njëriñ ci kër fas xoola ni ñuy rabee ni ñuy yare xoola ñun fi borom sareet yi xiir lañ ñor way taw fas bi ba fas kii yàqu bagage yi yàqu suñ koy wàcce fu ñu koy gaare ci naaj bi duñ ko defal sax mbaar naaj bu tàngi jër ba kenn ñemewul toog ci naaj bi nga gis fas bu ci taxaw wala bu ci tëdd sa të të të wala ñu jàpp ko af sëf ko sëf ko sëf ko te yow ku la sëfoon lii nga dee nga jàpp fas bi sëf ko loolu ñun ñun dañoo ñàkk yërmande ci rab dañoo ñàkk yërmande ci lépp loolu daf tubaab yi raw nu da ngay gis ay xale yu jàpp benn muus di ko dóor ay xeer ba muus mi dee surtout doomu muus yu ndaw yi nii beneen bi ci gën a dangereux nag muus mi day am doom ci kër gi nga gis maire bi ñëw ne yóbbul lan ma ko ca mbalit ma ñu jël douze muus yu ndaw douze muus def ko ci saak dugg ci biir stade bi ne ko yalax yalax ci naaj bi dem ñibbi ndeysaan yow ku jëloon sa doom liir sànni ko ci stade bi nu muy def nu muy def ana yërmande gi ana yërmande gi ana yërmande gi nga jël doomi jàmbur sànni ci àll bi nga jël say doom denc ñu ne am nañ yërmande ñun daal leen lañ yërëm leen mooy xar xar da yërëm nañ xar moom ndax xam na ne danañ lekk boo ko yërëmul bu dee da ngay perte nga yërëm ko nag sax yërëmuñ ko ndax ñemewuñ ko ñemewuñ nag moo tax yërëmuñ ko nag moom xam na bu la jekkee da lay rey moo tax daa doon fay koy teg yërëmuñ ko am maa xar ay may ngeen xaar yi ñu lekk may ngeen xaar yi ñu naan yéen tey la dimanche sang leen xaar yi ya rek am na ci xar yoo xam ne sax léegi façon xar yoo xam ne xar yooyu ñoo gën nit yi ci biir kër yi benn xale bu jigéen nee na ñun sunu laadum yi ñoo ñu gën ci biir kër gi ay laadum yoo xam ne kiran la ñuy naan kiran la ñuy naan kiran ah dañ leen di sang di leen fomp dindal leen ravitaillement am médecin waa kër gi amuñu médecin de waxuma sax xar yi waaye bula Hollande yi am na ñoo xam ne bula Hollande moo leen gënal seen doom billaahi Sénégal mooy dëkk bu doy waar nit xar gënal nit doomam xar utal xar yi ay médecin di leen yóbbu vétérinaire sa doom yi buñ la nee suñu bopp a ngi metti doo génne sax 100 francs ne jënd leen paracétamol gis ngeen ko wala gisu leen ko mu ngoog rey leen Yusuf su ngeen ko mën ta rey ah aw itrahuhu sànni leen ko ardan fu sori foo xamante ne bu demee du delsi yaxlu lakum wajha abikum su boobaa nag ngeen am seen kanamu papa allahu akbar su boobaa seen papa comme gisatul ku muy waxtaanal nu muy def gisatul ku muy yónni nu muy def yéen ñii lay gis yéen lay woone leen kaay leen toog ñu wax xoola xoola pexe yi benn borom xam-xam dafa bind benn xutba juma ci ramadan mu ne yéen jullit ñi bu leen mel ne mbokk yusuf yéen jullit ñi ci weeru koor mu ne bu leen mel ne mbokk yuusuf ñu ne ko ah mu ne yéen koor laa taqtulu ramadan bu leen rey koor allahu akbar ñu ne ko beneen bi mu ne aw itrahuhu ardan bu leen sànni ramadan fële ñu ne ko beneen bi mu ne wa alquhu fi ghiyaabatil jubbi mu ne bu leen sànni weeru koor ci biir teen ñu ne ko ak ban mu ne mel leen comme buuru Égypte buuru Égypte lan la waxoon ci Yuusuf akrimi maswaahu mu ne yéen tamit akrimu ramadan ndeysaan xutba bu neex toppandoo woon naa ko bu xutba ko fii yaakaar naa de ah ci vendredi ci weeru koor bi ma fa mujjee jiit allahu akbar gars yi dañoo jàng de boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fay waaye waaye bu leen rey xale bi bu leen ko sànni ndax lan rek am sunu kanamu papa mën a wéet ak moom góor gi ndeysaan waaye ndeysaan iblis baaxul wa takunu min baadihi qawman saalihin bu ngeen defee loolu da ngeen di nekk ginnaaw Yusuf ay nit ñoo xam ne nag léegi ñu baax ngeen naka leen di reyee nit ba bare baax xoolal lu lu ñu tëjee ñoom seen bopp ñu ne bu ñu reyee xale bi wala ñu sànni ko ci àll bi après nag léegi dañuy am seen papa léegi nag ñu nekk nit ñu baax comme jege nañ paa bi ñu ngi waxtaan ak moom wa takunu qawman saalihin yow mën ngaa rey nit ba pare wala nga jël ko fexeel ko sànni ko ci àll ba pare yàlla xam loolu ba pare nga mën a nekkaat nit ku baax xam nga ne Iblis moo leen xelal li waaye xam nga ne ku rey nit moom ba pare na dëkk bi de waajee fi gën a baax te moom daa rey nit ok xam nga ne baaxul qaala qaailun minhum kenn ci ñoom ndeysaan ci frère yi bu baax la woon mu ne laa taqtulu Yusuf bu leen ko rey bu leen ko rey de loolu du fexe mën ngeen koo sànni ci àll bi mën ngeen koo jaay mën ngeen koo mais bu leen rey moom mooy dernière chose dóor leen def leen lu leen neex waaye bu leen ko rey ndeysaan dèjà sax ci biir mbooloo mi ci biir mbooloo mi am na fa kenn koo xam ne ah ku baax la ku baax kooku moom lan la wax mu ne laa taqtulu yusuf bu leen ko rey ñu ne ko kon lu ñuy def mu ne wa alquuhu fi gayabatil jubbi sànni leen ko ci biir teen dem leen ngeen xool teen bi gën a xóot ci teen yi ci àll bi ngeen xool benn bi ci gën a ñàng ngeen sànni ko foofu waaw loolu ak rey mbokk yi lu ko wutale moom tamit proposition bi doy na waar de fee mu ne bu leen ko rey fii mu ne tëmbal leen ko ci biir teen bi ah yaakaar naa yenn saa yi rey gën a sedd tëmbal ci biir teen de allahu akbar ñu ne bu ngeen ko sànnee ci biir teen bi yaltaqituhu baadu sayaara yenn caravane yi nga xam ne dañuy tukki nga xam ne dañuy takk seeni gëléem di jaar di mar bu ñu séenee teen bi danañ dem dugal seen baag amaana ñu for ko suñ ko jëlee ñu yóbbu ko xam nga lu ñu def ñëw ci seen papa ne ko dañoo bëgg tey nga bàyyi ñu ànd ak Yusuf bu ñu demee ñu foog moom seen papa ne ah mbaa wóor na kii xale bu ndaw la de damay bañ ngeen dem ngeen topp xar yi ak seen fo yi ngeen sàggane ko tilli lekku moom tamit ndeysaan orienté na seen idée loolu tax bañ demee seen crime ba pare ñu ne comme suñu papa waxoon na ti la ko lekk nañ dem ñu ne ti la ko lekk moo tax il faut defal attention sooy wax ak sa doom ci yenn yi bul ti anticiper parce que daf koy jël soo koy wax mu koy utiliser maa ngi nii di la yónni nag bëgguma nga jaar barab sàngam soo koy wax mu fay jaar bool baa ngi nii waaw bool baa ngi nii yaa ngi nii dem bul ko ubbi suy génn di ko ubbi bul wax loolu ne ko rek da yóbbul bool bi mën na dem ba ñëwaat boo nee lu ci nekk mu ne la xaw ma ko waaye wallaahi boo ko nee bul ko ubbi parce que xam nga lu tax doomu aadama moo garaaw garaaw goo xam ne gis ngeen aadama bi ko yàlla ne bu leen jege bul jege garab gi lu mu de bu ma jegee da koo dem lekk doomu aadama moo bañ lu ay papa wala lu la ñu ne bu ma ubbi bool bi foog ma xool lu ci nekk te du yem jig di xool ko de yi kat dañ ko yekkal dañ ko yekkal bulet ndaa dina coppet benn bulet suñ ñëwee ñu ne ko yow yow daa mel ne bool bi laal nga ko de kaay ñu fóon sa loxo rek wala ya mu benn bulet laa lekk benn laa lekk wala gis nga sow mi day gis booy ratt naan daal di toqal naan doomu aadama moo mel noonu doomu aadama moo bugg moo buggul ku ko moo tax booy tere dara bul bul bul egg ci li ngay tere saa yoo eggee ci li ngay bëgg a wax booy exploité ko wala nit ki exploité ko parce que seytaane moo koy wax dafa am lu fa nekk dafa am lu fa nangam ak nangam ba ñu déggee seen papa wax lool rek ñu profité ñu daal di koy jàpp yóbbu ko ci àll bi torturé ko li ñu njëkk a def torturé ko dóor ko xotti yére yi sonal ko agressé ko agressé bu méttee méttee méttee méttee ndeysaan te ndeysaan bi ñu koy dóor suñ ko dóoree day daw jàpp ci kenn ne diw diw bu leen ma def nii ay waay waay bu leen def lii yéen xam ngeen ne li ngeen def nii sama papa bu ko yëgoon yéen seen rakk laa yéen yéen yéen ndeysaan xoolal am na ci kenn koo xam ne moom moo ko ci gënoon bëgg kooku moom d'accordul woon sax ci dóor yi ñoom dañ koo boole ak ñetti ponkal ñu téye ko pour ñu mën a dóor booy bi am na ci woon ku ñàng ku bon koo xam ne amul sago moom rey suñ ko bàyyi woon mu rey ko ndeysaan ñu daal di koy jàpp yendoo koo dóor ba ngoon ñu waaj a ñibbi nag xamuñu nu ñuy def mënuñu koo delloo kër ga parce que gaañ nañ ko ñu daal di koy sànni ci teen ndeysaan teen boobu histoire am dina ñëw biñ ko sànnee lan la fa fekk kan moo ko fa teeru kan moo toog foofu ci biir teen bi nangami junni at di xaar bis boobu pour ñu sànni fa Yuusuf loolu du ñu anticiper dañuy bàyyi ba ñu yegg si bis biñ ko sànnee ci teen bi ndeysaan ñu ne in kuntum fa'ilin bu fekkee dafa am lenn rek lu ngeen di def mooy bu leen ko rey mais sànni leen ko ci teen bi su ngeen ko sànnee ci teen bi caravane yi dinañ ko for al musaafiruun as saairina fil ard ñi nga xam ne ay tukkikat lañ nga xam ne dañuy déplacé wu ñooñu dañ ko for su fekkee ne am na benn bi mbir bu ngeen di def daal def leen loolu bu leen ko rey kon mbokk yi lii mooy darsu tey incha allah damay arrêté léegi darsu bi ndax dañu am benn suuraa bu ñu war a def ak yéen balaa ñuy julli incha allah ndax ñu gagné temps salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.